yaa ah. ngi ci jàmm. ana buur. buur dafa liggéey. <laughs> amul ku ko jàppale. wante yàlla na ko yàlla jàppale rek. yàlla na ko yàlla jàppale ah ma si kii ba bàyyi boppam yàlla rek. allo salaamaaleykum. maaleykum salaam wa rahmatullah. maman man la Anna. ah woote bi neex na ma waay. Jóob Maxtaar aram sàll ko ni ma mu binta gegg sa tuxu jaam ak njawar Tooba Jaañ rek mooy sama maam naka tànki mbaa léegi ça va mi ngi tane waa maa ngi tane maa ngi tane alhamdulilah alhamdulilah waaw dama doon oo pour ne la euh, naa la deux cent mille francs ah waaw pour suukaru koor xeeb naa ko torop nag ñeent fukki junni yii li nga wax rëy na <laughs> yaa ko moom yow loolu bari na de ana Jóob bari na Jóob Maxtaar yaa ko moom yaa ko moom yaay sama maman. jërëjëf jërëjëf Diop kontaan naa trop. ok maman kon ñu def euh, noonu ba temps incha allah dinaa la owaat xam naa day waaye jërëjëf waay Diop Maxtaar yal na la yàlla fay. ok. <laughs> jég day gaaw. ay waay Anna Diop mii xool mu xool ma rek ci man. daay lay joxewul sax moom jéeg ji sëyul sax ñooy joxe joxe ba joxe fu joxe nekkul. laay laa yi ñoo am maanaa ay waay day day la daaw yaa naa def sant wala la maa ma kumba kumba ak suukar koor kumba gi yëpp ngi joxe suukar koor ba koor gi tàmbali ba tey yow na ñëw naa fi ñëwaat fi ñëwati fi tey nag ma ne damay ñëw nag laajte sama suukar koor dama jox sama suukar koor ah jéeg day gaaw markatu koor baa ngi jeex te defagoo sa taranga goro ba tey lii kenn mësu koo gis jéeg day gaaw ma ne jéeg day gaaw waaye jéeg day jaagar jaagar di gaaw gaawoo dara man bëgguma jéeg bu yéex oh. kenn mësul gis lii. am ah. am lan. sukkur koor. mooy sama sukkur koor junni. xanaa yaa ko doon laaj. moom ngay jëfanteex man julle laagatuma ko. laagatuma ko goro bu mel ni yow laay defanteel laagatuma ko. ay waay roy du nuroog piir waxtu ki daaw bi ki nee ngi toj dëkk bi ak peccum gannaaw ki nee ci mbubb yi mu ngi ci cuub yi mu ngi ci jabineer bi mu ngi ci lépp takkal na ma sax or kol yi nag tegle jéeg day gaaw wante toog rek ne faax ni faa gëdd mbay baax na jërëjëf yaay man dama yaakaar ne suukaru koor du farata aadala soo ko amee baax na soo ko amul wàcc na la bokkuma jigéen ñi nga xam ni dañuy wër di lebu naan dañuy àndi ay suukaru koor ñu jënd ay or ñu jënd ay oto ñu dem jënd ay seen tissu yu cher ëllëg problème fekk leen ci te loolu sax moom yëfu puukare la yow suñu situation xam nga ko bu baax ba ci apartement bi dara ëmp la ci lépp fii la la fekk nu mu demee xam nga ko bu baax te nag nit ki soo ko toppee ngir alal su demee ba ñàkk nga dem bàyyi ko soof